arati al aatiyati maa la nga xam ne jaa dikk na min al ahwaali ci ay xaal mu bayyinan mbirum muy aji biral xay atal faaxili melaw faaxil ba wa maag la nga xam ne jaa dikk na min xaa ca xaal ya mu bayyinan mbirum muy aji biral xay atal mafoolu bii melaw mafoolu bii ma wax ji taxu koo gudd waaye daa bëgg nga xool xaal ya ca nekk te boo ne lii xaal la nga ràññeel ba xam day leeral melawu làqoon ca faaxil ba wala day leeral melawu làqoon ca mafoolum bii ma yokk dulu dana dëgmal annaasu nit ñi xalat taajiri ci commerçant ba al amini ba di bu ñu yoolu mooy ba jub rek commerçant bu jub ñàkk caaxaan waa siqiina mbir mi way dëgërlu di ci mëti yi ci wala réew mopp ma indi na tey way dal xel ilaa muhaamalati yi jëm ci ak jëflanteem man nga ne mutma inni na mbir mi woy dal ilaa muhamalatihi jëm ci jëflanteeg moom li annahu ngir naka moom yabiyuhum dana leen jaay silahahu ay njaayam xaaliyatan mbir mi ñu aji wéet ñoom njaaya min kulli rëchin ci gépp rax mooy lu ca bokkut wayu addi te muy joox ilayhim jëm ci ñoom xuqooqahum seeni àq kaamilatan mbir mi ñu aji mat ñoom àq ya wa ita talaba bu sàkkoo ilay jëm ci moom ahadul xorafaa yi kenn ci way méccoo yaxantu nasihatan ab laabire addaaha mu jox laabire ba ilay jëm ci moom moo tabitan mbir mu muy aji ñeewu masrooran mbir mu muy ko ñu bégal boole ja wa in faataxoo ak doonte raw na ko min wara isalika ci gannaaw loole ribhun bénéfice kabirum bi aji bari nit ñi buñ gisee commerçant boo xam ne bu jub la bu ñàkk caaxaan dañ koy dëgmal wóolu ko seen xel daal ci jëflanteeg moom ndax bu leen dee jaay ay njaay njaaya du am genn rax dara lu ci bokkut duñ ko ci rax te itam ku ci ne dalay jox sa àq ba mu mat bu kenn ci ñi jaay ne moom ñëwee di sàkku ci moom ak laabire di ko nekk di ko laaj ci mbir lu mu ci xam da ko koy wax ànd ci ak xol bu tàll donte sax li muy wax mën naa am intérêt bu rëy raw ko ci ni ki mu ñàkk ci bénéfice boo xam ne wax gi wax lii moo tax it du tee rek moom mu wax ko la am dëgg-dëgg at tamrin at taani ayin fil jumali al atiyati ma jaa min al ahwali mufradan aw jumlatan ismiyatan aw jumlatan fi'aliyatan aw zarfan aw jaran wa majruran jumla yu xaw nañoo bari waaye daa bëgg nga xool xaal bu ci dikk tey mufrad nga ne xaal bi mufrad la bu ci dikk tey jumlay lisim nga leeral ko ne jumlay lisim la bu ci dikk di jumlay fi'al nga leeral ko xaal bu dikk di zaraf mbaa jaaru majrur ba tey nga leeral ko daxala tàbbi na al lisu sàcc ba al mansila kër ga wa ahluhu te mbir moom ñooñ kër ga naa imoona way nelaw lañu fasaraxate mu sàcc maa lépp loo xam ne fii nekkoon na ci moom minal am ti ati ci ay bagage at taminati aji foor at taminati tuma xaraja topp mu génn wala muy suur te mbir moom yëgut bi ci moom ahadun kenn foofu am na yaari jumlay xaal wa ahluhu naaimuuna ak wala muy suur bi ahad jumla bu ci nekk jumlay xaal la wa ahluhu naaimuuna jumlay lisim la wala muy suur bi ahad jumlay fi'al la dahaba demoon na al ummaalu liggéeykat yi ila amaalihim jëm ci seeni liggéey mam loo iina mbir mu ñu ñu feesal na shaatan ci cawarte su ma xaadoo topp ñu dellu si min xaa bàyyi ko ci liggéeya waxad badat te mbir moom feeñ na xaleyhim ci ñoom asaaru temps bi jeex yi ti coono wal ijhaad yi ak dajjiku yaram moo gën a neex a wax dane liggéeykat yi ba ñu dem di liggéey yi dañoo amoon cawarte lool waaye nag ba ñu dellu see daal koo ci xool gis ne jeex yi ti coono maanaam màndargay coono ak da akuk dajjiku mi ngi feeñ ci moom istara jëndoon na ak taajiru commerçant ba alxina ba reseñ xalaa karmihi ci kaw garabam nga su ma xatafa topp mu wattu ko man nga ni xalaa karmihi mbir mu nekk ci kaw garabam nga moom reseñ ja su ma xatafa topp mu wattu ko naa bi jën mbir mu muy aji ñor wa baaxoo te mu jaay ko raabiha mbir mi aji bénéfice su fii ci moom fi mu toll xalaa karmi yi dafa nekk jaaruma juru waaye xaal la ci alxina ba naabijan xaal la ci xóobi ci xatafa xoo raabihan xaal la ci huwa bi nga xam ne moo làqu ci baaxa doon fa'ilan absartu xool naa ak taayira njannaawo fawqal xusni mbir mu nekk ci kaw carba wa sami'tuhu te ma dégg ko yu xaridu mbir moom dana sab bu fekkee jàppewoo samiha kuy am yaari ma fool kon jumla yu xaridu xaal lay doon taxridan ak sab xasanan gi aji rafet fawqa boobu nag zarfu makaan la te dellu ci ab taayiru jooju nazartu xool naa asamaka jën ya taxtal maay mbir mu ñu nekk ci ron ndox ma fa alqaytu ma sànni shabakati sama mbaal xaasidan mbir may aji jublu saydahoo ak nappam fa xarajat te génn a shabakatu mbaal ma laa taxmilu mbir moom du ware shay an dara fa alqaytuhaa ma sànniwaat ko maratan aw yoon taaniyatan mu ñaareel fa xarajat te mu génn moom mbaal ma wa fiihaa wa fiihaa te mbir moom nekk na ci biiram isnata xasharati fukki ñaar samakatan ci ay jën saxiirat ni aji tuuti yu aji ndawe dama xool jën yi seen leen ci ron ndox ma ma sànni sama mbaal bëgg a napp jën yi ba mbaal ma génnee génnaale wut wenn jën ma dellu sànniwaat mbaal mi waaye bi mbaal mi génnee génnewaale na fukki jën ñaar yoo xam ne yu ndaw lañu baa jaay na alfallahu baykat ba xupp na wa wateenam fii xëyri tu adatin mbir mu nekk ci lu dul ak teey waxaada te mu dellu si mina suuxi bàyyi ko ca barse ba naa di man mbir mu muy aji reccoo fii xëyri tu adatin jooju jaaru ma jëral waaye xaal la baykat bi dafa jaay wateenam te amu ca teey moo tax ba mu ñibbisi bàyyi ko ca marché ba ak rëccu la indiwaale naa di man booba tey xaal la ci faaxi di xaada muy xóo bi mu nëbboon man jala sa ku toog waxuwa te mbir moom moom saxirun ndaw la mu toog nag xay si yuxib bu fa mu bëgg jala sa mu toog xay si yëkkaraxu fu ko naqari muy fu mu sib waxuwa te mbir moom moom kabirun aji mage la gone daa war a bàyyi rek ñu teg ko ci yoon yar ko ndax mu defaru ba bu ëllëgee di mag am njariñ waaye nag bu dee gone toog fa ko neex maanaam yéeye na ko neex rek bis bu doonee mag faaw muy gis lu ko naqari te du ca mën dara mooy ku toog fu la neex ba nga dee gone ba doonee mag da nga toog fu la naqari te doo ko sañ a bañ at tamrin at taalif ayin ràññeelal ar rabita aji takk ja allësi ja nga xam ne yarbitu dana takk jumlatal xaali bi saaxibihaa ci boroomam fii kulli jumlati min al jumalil aatiya dafa bëgg jumla yi bëgg a ñëw xaw nañoo bari nga xool leen jumla boo ci xam ne xaal la nga wax lan moo ko yeew ci boroom xaal ba ak la lekkoon na faridu farid wa huwa te mbir moom moom shabahaanu aj regg la tuma xaama topp mu jóg yashkoo mbir moom dana jàmbat alaman metit fi maidatihi ca bàqam nga farit daa xiifut daa regg ba noppi teewul mu lekk waaye ba mu lekkee ba jóg bu taxaw rek tàmbalee jàmbat metit bu nekk ca bàq ga wax wa shabuhaanu jumla boobu xaal la jumla yashkoo ba tey xaal la bu dee wax wa shabuhaan boole na ñaari raabit amee na waaw ami huwa yaar yépp la boole yashko nag moom dafa am rek damir muy huwa xaratu jàng naa alkitaaba téere ba wa maa wajattu te mbir moom fekkuma fii ci moom kalimatan benn baat garibatan buy aji tumuranke mooy baat bu ñu miinut bu naqaree xam maanaama jàng naa téere bi te fekkuma ci benn baat bu naqaree xam la muy tekki baat bu ñu miinut daal gis ma ko ci ujillu danaa màggal ustaas yi sama ustaas raaba mbir moom fàddu na aw xadara wala mu teew sama ustaas dama koy màggal moo xam mi ngi teew moo xam teewut namat màgg na al ashjaaru garab ya wala maa tutmir te mbir moom meññuñu ba tey léegi meññaguñu jumle wala maa tutmir jooju xaal la moom nag boole na yaar am na waaw amee damir jumle raaba ji nga weesu léegi nag moom damir rek la amee woon istayqazna yeewu nanu mina naw mi bàyyi ko ca nelaw ya wa ma talaat te mbir moom fenkut ak samsu jant bi wa ma talaat samsu jumlay xaal la waaye moom waaw rek la am rakibtu warna as-safinata gal ga wal bahru te mbir mom geeg gi haijun aji jaqiku la aji tang la koku nak waaw rek la am jumlay wal bahru haijun jojo maka sa saxna ad-dufu ganya idna fi nun yawmay ni ñaari fan ma qassarna mbir mom gatal lu wunu fi ikramihim seenu teral gan ñi gan nañu deerub ñaari fan waaye gatal lu wunu benn yoon ci teral leen jumla yi ma qasarna jooju damir rek la amee laa tanam bul nelaw wa nawafidul ghurfati tamir moom faneetari sambar bi muq fa la ñu tëj la bul nelaw ci biir néeg bi te fekk nga tëj mboolem faneetari yi sambar bi ba ngelaw mënta jaar fenn ak si ci yow foofu jumla ji waaw rek la am wa nawafidul ghurba qabaltu jàkkaarloo na maag axaaka sa mbokk waxad xaada te mbir moom dellu si na min safarihi bàyyi ko ci tukkeem ba kooku moom daa boole yaar am na waaw am na damir tax wo bi dellu ci axaaka te mooy faaxili xaada التمرين الرابع أكمل كل جملة من الجمل الآتية بوضع حال تتك حال مفردة بنك مفرد maratun aw yoon wa xayra muhradatin ak bu nekkul mufrad uxra beneen yoon jumla yu xaw nañoo bari daa bëgg jumla bu ne nga mottalee ko xaal waaye da ngay def boo defee fee xaal bu nekk mufrad ba ca topp nga def ko xaal bu nekkul mufrad toppoo ko noonu nag bañ mat laa tam si bul dox fi leeli ci guddi ga mel ni nga teg ci mun faridan mbir mu ngay aji wéet xaada dellu si na al junoodu soldaaya man nga cee teg waxum te mbir moom ñoom man sooroona ñu ñu dimbali lañu mooy àndaal nañ gañaay foofu jumla boobu xum man sooroona jumla boobu xaal la ci al junoodu nga topp yi des na def ko noonu farra daw na al mujrimoona way tooñña mi ne sijni bàyyi koo ca kase ba mi ne sijni bàyyi koo ca kaso ba yahoodu dana dellu si al atfaalu xale ya min al laayi bi bàyyi ko ca poma zahabat dem na al maasiyatu jurga ilal marxa jëm ci sàmmukaay ba mooy farukaay ba laata akul bu lekk at taxaama ñam wa nga jàll aqbalat dëgmal si na al xaylu fas ya nga jàll xadara teew na al jaani aji tooñ ji amaamal qaadi ci kanam aji atte ji lima tuzoona lima ana ngir lan tu zona ngeen di lor axaakum seen mbokk in bas solal siyaabaka sa yére at tamrin alxamis kawin formel jumalan ay jumla te jiwéridik fiihaa ci ñoom al asbaasu baat yi at liyatu yi aji topp ahwaalan mbir mu ñu ay xaal baat yi bëgg dikk moo xam dañuy benn benn moo xam dañuy jumla mën nañoo nekk xaal daa bëgg nga indi nag ay jumla yoo xam ne yaa koy defal sa bopp ba noppi nag jël baadee teg ko ca niki mustabshiran mbir muy aji bekk niki nga ne xaada walidi mustabshiran ak zafiran mbir muy aji gañe niki nga ne xaada aljaysu zafiran nga def nag aasifiina mbir muy way jàq bu dee mbooloo bu dee ñaar nag muy aasi fay ni ak wa anta te fekk na yow xadabaanu ngay aji mer ak waxadd aayaahum te mbir moom lottal na leen attaxa bu coono ba ak maa ixwatihi mbir muy ànd ak mbokkam ak musrihina mbir mi way gaaw ak jaahilatin mbir mi way réer ak wal xorraasu te mbir moom garde ya niyaamun way nelaw lañu ijhalil xaalal mufradata في كل مثال من الأمثلة الآتية حال بنك مفرد بول مثال دي بغا ديك سوتكو دفكو حالا حال غير مفردة بوب مفرد mbolem jumla yi bëgg dik bu ci nekk am na xaal boo xam ne mufrad la daa bëgg nag nga soppi xaal boobu mu nekk jumla mbaa mu nuru jumla ki jalasa toog na almudni bu aji bakkaaru ja xaayifan mbir muy aji ragal mbir mu muy aji tiit man nga ne jalasa almudni bu yaxaafu mbir moom dafa ragal yoo jibu nii dana ma yéemuloo alxani yu aji riis ja mu tawaa di an mbir muy aji toroxlu boo ko defee rek yatawaa dong mu daal di doon jumla waxe bu danaa sopp attil mii da élève ba mujj taxidan mbir muy aji farlu nga def ko ko samiatu dégg naa almarida aji tawat ja shaakiyan mbir muy aji jàmbat ab sartu xool naa alwarda roos ba mu fattaxal mbir mi lañu fett baaxa jaay na alfallaahu baykat ba xutt naxoo wateenam wa raxiisan mbir muy aj jomb njëg njëg ga yomb xaada dellu si na attaajiru commerçant ba raabixan mbir mu muy aji bénéfice wa laa taxtalit bul jaxasoo binnaasi ak nit ñi maridan mbir mu muy aji tawat maanaam boo tawatee bul jaxasoo nit ñi isfax na nga jéggal xam man walis ka nga xam ne attaque dikkal na la moo tadiran mbir mu muy aji dogal ngànt maanaam ku ñëw di joxe ngànt di baloo ko jéggulu baal ko unzur xoolal ila sama jëm ci asamaan si moom tiratan mbir mu muy aji taw at tamrin assabia ijxal jumlatal xaali fi kulli misaalin min al amsilatil aatiyati xaalan mufra datan fii daa safaanoog fee fee nga weesu woon xaal ba daa nekkoon mufrad ca jumla bu ci ne mu waxoon nga soppi ko jumla mbaalu nuru jumla fii nag moom xaal bi day nekk jumla mbaalu ko nuru mbëgg nga soppi ko mufrad tamuru dana romb bi naa ci nun al ayaamu bis yi wa naxnu te mbir moom nun laahoona way fo lanu bis yi day romb rek di jàll nun nag nuy fo rek ngay soppi tamuru bi naa al ayaamu laahiina laahiina jaa adikk na almudribu aji bakkaaru ja yaatadiru mbir moom dana dogal ngànt xam zam bi walis bakkaaram ba ngay wax rek jaa almudnibu mutadiran xam zam bi rajaxa dellu si na assaabiqu aji raw ja yata sababu mbir moom dana sottiku xaraqan ci aw ñaq ngay wax rajaxa assaabiqu mutasabbiban mbir mu muy aji sottiku xaraquhu ñaqam wa soo ko defee nag mutasabbibal xaraqi du ko tee baax laaf gi mu laaf al xaraq tam taara du ca du ko tee doon ixraab du tee ñun ixraab ko xaal rakibtu war naa alxisaana fas wa wa huwa te mbir moom moom mutxabun lu ñu sonal la ngay wax rakibtul xisaana mutxaban rek nga def koy ci des faaraqtu teqalikoo na maag ixwaan yi samay mbokk wa anaate man mun qabidu sadri aji nubu ab dënn laa aji banku ab dënn laa maanaam tàggoo na maag samay mbokk ànd ak xol bu ñàkk a tàlli ànd sañatu dégg naa alxatiba aji xutba ja ya siru muy jàpp alxoloo ba xol ya bi husni lafsi yi ci rafetug baatam ba baat ya muy wax moo rafet moom mi xutba ba xol yi dañoo nag téyatuñ ko leen dafa jàpp xol yi téye leen ab sartu xool naa tamaral bustaani meññatum jardin ba yetta saaxatu mbir mu gën a rutturuti shajari yi bàyyi ko ci garabam ya xariqat lab na asafinatu gaal ga waxadd kaana te mbir moom nekkoon na manzaruha xoolukaayam ba rahiban di aji raglu wala di lu ragal gaal ga lab na waaye ba muy lab boo ko dee xool di ko gis muy lab dafa raglu lool ca noona boo ko dee xool kon foofu ay jumla kese ñoo fi ñëw di ay xaal bëgg na nga soppi leen mu farad nga xool nag at tamrin at taamin def ko xool at tamrin at taasiya def ko xool at tamrin alxaashir noonu ak si ba ci at tamrin alxaadiya xashar moom incha allah kompo la sif melalal yow man ab bis xarajta boobu génnoon nga fii ci moom maxa baax bi ahlika ànd ak lenn ci sa waa kër li nusxati ngir promenade fii safinatin ci ak gaal waa amal te nga jëf xalaa anta atiye ci kaw nga dikke fii xudoonil mawduhi ci biir tem ba bi ahwaalin ci ay xaal munaasibat ñu aji yàlla suma bàyyin topp nga leeral baadal kitaabat ci gannaaw bind ga baadal kitaabati kulla xaalin bépp xaal atayte boobu dikkee nga bihaa ci moom wanaw xaxaa ak façon ba da ngay seet bis boo génnoon ànd ak ñenn sa waa kër ngeen di féexlu ji te fekk na ngeen war a gaal loolu da nga cay sos ay wax xam ne kon yaa koy sos nga jéem nag ci biir tem bi di ci indi ay xaal yoo xam ne xaal bu ci ne fa mu nekk yell na fa soo noppee nag loolu bëtiku leeral fu xaal nekk nga ne lii day xaal la wax itam ban façon la ma dafa nekk mufrad wala dafa nekk jumla mbaa da ko nuru at tamrin ak thaniya hashar moom inrab la mu jëkkee namuzaj rakibtu war naa asafinata gaal ga wan na siimu te mbir moom gelawu nooy wa xalilun aji ràgg la mooy aji upp ndànk la rakibtu ji ngay wax rakiba rek fekk rakib moo fi nekk rakib fexlul maadin la mabniyun ala sukkooni wa taawu taa bi damirun la mabniyun ala dammi fi mahalli rafin faahilun rakib day fihil maadin ñu binaa ko ci sukkoon ndax tu biñ ci jokk tu bi nag day faahil ñu binaa ko ci dàmm mu nekk ci bérébu rafaa asafinata mafulun bihi mansub la wan nasiimu al waawu waawul xaali waaw gi ci wan nasiim waawu xaal la xarfun mabniyun al fath wan nasiimu ji mubtadaun la marfooxun bi dammati al zahirati an nasiimu day mubtada ñu rafaay ko dàmm goo xam ne fu fis nga ci teg sa bët xalilun xabarul mubtada yi mooy itam marfooxun bi dammati al zahirati ba jumlatul mubtada wal xabari xaalun xaal la fi maxalli nasbin boo ne alil xabar la bu rafaay dàmm bu fis nga teg sa bët ngay wax kon jumlay an nasiimu xalil xaal la ci asafina te di ko jiitu ko defee nag jumla bi kon bérébu nasab lay nekkee ndax bu doon benn baat day nasab axribil jumalal aatiyata iraabal jumla yi bëgg a dikk xaraja génn na al awlaadu gone ya waxum te mbir moom ñoom farixoona way bëgg lañu ab sartu xool naa aliyan aliyu maha asdiqaayihi mbir mu muy ànd ak xaritam ya laiba fona al atfaalu xale ya fii nachaatin mbir mi ñu nekk ci jawarte wa aadoo te ñu dellu si masroor yi na mbir mi ñu ñu bégal ak tamyiisu lii mooy tamyiis mu njëkkee al amsilatu isawtu jënd naa ritral ab liibar balaxan ci bengal bengal tàndarma xallat ñoral na al ardu suuf si ir dabban benn ir dabb xam-xam ci bele suuf si lam ñoral ci bele benn ir dabb lay tollool baa am ni jaay na ma at taajiru commerçant ba diraaxan ab xasab xariiran ci sooy commerçant yi dama jaay lu tolloo guddaayu xasab ci yére sooy fil xaq li nekk na ca tool ba fisiroona ñaar fukk baqaratan ci ay nakk taaba tey na teey na almakaanu béréb ba xewaa an ci jaww maanaam béréb ba jawwam dafa neex faaba baawaan na alxalbu xol ba suróoran ci mbégte xol bi daal fees bay rembat ak a tuuru ci mbégte alxina bu reseñ min alladdi anwaaxil faakihati bokk na ci ganja neex yi façon yi fruit yi taaman ci cafka reseñ bokk na ci yi gën a neex cafka ci mboolem xeeti fruit yi alqaahiratu keer ak saru mu ëpp minal iskandariya ci iskandariya sukkaanam ci ay habitants maanaam keer moo ëpple nit ñu fa dëkk beneen dëkk ba tudd iskandariya albaas ida xolta boo waxee ne ishtaraytu jënd naa ritlan ab libar lam yafham du xam assaami aji dégg ja maa la nga xam ne turiidu ko da nga ko namm bi rabtani ca libar ba foofu moom laa yadri du xam abalaxat ndax bengal istarayta nga jënd am samnan wala diwu ñor am xasalan wala lem am sukkaran wala sukkar wa dalika loolee li ànn ritt la li ànnar ritt la ngir naka rittlu is bu nisim rek bu bu xamun bu di buñ lëm yasluhu bob dana yiw li an turaada ñeel bu dee fi namm bi ci moom hadihi al maani yi lay maana al kathiratu yi aji bari walakin nag waaye yow isa qulta boo waxee ne bala xan ci dungal zaala dañ al ibhaamu lëm ga boo fahima te xam fahima dégg la waaye mooy déggu xam asaami aji dégg ja muraada ka sana meel tamaamal fahmi matuk dégg mooy matuk xam li ànd ak ngir naka yow may yesta ràññeel nga la ñeel ko arit la libar ba wa bayyante te leeral nga la ñeel ko al maqsooda lañu namm lañ jublu minhu ca moom wali daalik ngir loolu yu sammaa def na tudde lafzu balaxan baatu balaxan tamyisan tamyis kama yu sammaa ni ki dee fi tudde al ismu lisim ba al mubham ba di buñ lëm waxuwate moom ritlan mooy ritlu mu may yesam lu ñu tamyisal neena xoolal misaal mi nga tàmbalee boo yemoon ci rek jënd naa ab liibar rek jënd naa ab liibar mu ne kon duñ xam ba xam liibaru lan la ndax liibar moom mën naa doon liibaru bengal bee mu tudd ne mën naa doon sukkar mën naa doon café bu dee ñu natt tam boo ne jënd naa lu tolloog ab walaat mën naa nekk ab walaat ci diwu ñoro mën naa doon ab walaat ci lem ba walaat ci meew mi wéy ndax baat fu nit lu moom day lisim bu ñu lëm boo xam ne mënees na cee namm ay maanaa yu bare bari niñ ko waxee léegi waaye nag boo ne istoretu rit lan teg ca balaxan jim ci teg yi firi bengalu tàndarma ki ngay waxal du amati men lënt mooy kii dégg daal di xam ne kon da nga ne jënd naa liibaru bengalu tàndarma ndax ràññeel nga ko ritlu ci bi nga indee balaxan ba mu xam ko bu baax a baax ndegam nag balaxan mooy kiràññeel ba nga xam ritlu te ritlu moo lëmu woon bu mënu ko woon a xam baat bi ko xamle muy balaxan moom la ñuy wooyee tamis bu lëmu woon nag xamuñu ko woon te léegi ñu xamle ko ci balaxan bañ xamle ko ñu ki ritalan ji mooy tudd mu may yes lañ tam yisal kon baat ba lëmu xamuñu ko woon mooy tudd mu may yes baat ba ko leeral bi nga xam ko mooy tudd tamis wa bi daalik ci loolu tastatiif ngay mane an taqoo la nga wax ne inna kull asmin naka bépp lisim min al asmaa ci lisim yi al axirati yi aji mujj fil amtilati ci misaal yi al mutaqaddimati yi aji jiitu tamyisum tamyis la lil mubhami ñeel lañu lëm xabla hoo ci ak njëkkam wa inna dalika al mubhama ak naka loolee ñu lëm huwa moom al mumayyasu mooy la ñu tamyisal mu ne kon nag mën ngaa jàll ci misaal ci topp ne da nga ne xallatil ardu ir dabban nga ne suuf si ñoral na lu tolloog benn ir dabbu boo ci yemoon kenn du xam ir dabb lan la ndax day ci gerte wala ci suuna wala ci saaño wala ci sëb boo ne xam-xam ci bele nag xam-xam jooju mooy leeral liñ jublu ci ir dabban kon xam-xam mooy nekk tamyiz ir dabban nekk mu may yes lañ tamyizal fa itam boo ne woon commerçant bi jaay na ma lu tolloo ko xasab ci guddaay wala mètre wala genn wàllu mètre wala fukki mètre noonu mën naa doon ci tiisi mën naa doon ci suuf mën naa doon ci ak buum ak leneen ak leneen boo ci tegee nag xariran ci sooy daal di xam ne guddaay bi nga jënd ci commerçant bi sooy la bu dee xasaba sooy la bu dee ab mètre noonu bu dee fukki mètre noonu kon jiraaxan mooy almuma yes lu la mu woon dañ leeral ko xariran mooy tamis bi boo nee tool ba day ñaar fukka nga fa ñaar fukki day jamtalu mi ay nag wala muy ay xara wala muy ay bëy wala muy gëleem kon nag boo ci tegee baqaratan mooy ràññal ne xisroona bi ay nag la su boobaa baqaratan mooy nekk tamis xisroona booy nekk li lëmul woon te nga leeral ko ci baqaratan ñu koy wooye al mumayes wa isa baxas naa bu nu gëstoo xanil mumayes yi walis lañ tamisal fil amsilati ci misaal yi al mutaqaddimati aji jiitu wa jat naahu nu fekk ko fil arbaxati ci yent ya al ula ya di way jëkk madkooran mu lugi tudd fil lawsi ci baat ba fa huwa moom fil misaali ci misaal ma al awali bi aj njëkk réttalan mooy baat bu réttalu wa huwate moom min asmail wasni muy bokk ci turi peese wa fi taani ñaareel bi ir dabban moo di ir dabb te wa huwa moom min asmail kayli muy bokk ci turi natt wa fi taalis ñetteel bi diraahan mooy diraahan wa huwate moom min asmail misaaxati mi ngi bokk ci turi nasiir tooy natt ci guddaay wa fi raabixi ci ñeenteel bi xisroona mooy xisroona wa wute moom min asmail xadadi ngi bokk ci turi lim nee na boo dee xool nag lu lëmu woon te ñu ràññal ko ci tamis bi boo ko xoolee ci yent misaal yi njëkk ci kaw da nga gis ne bu dee ci misaal mu njëkk ma mooy baatu rétlu te moom daa bokk ci tur yi ngay tudd boo dee peese ab liibar ab kilo di wéy ma ca topp baat ba la mu woon mooy ir dabban te moom daa bokk ci nattukaay yi li ngay tudde àndaar ak faxa ak mata noonu lay mel boo jàllee ci diraaxan moom muy firi xasab mu ngi bokk ci li ñuy seete ay guddaay mel ne meetar ak xasab ak ab sebreeg yooyu muy asnaawul misaaxa boo jàllee ci hijroon nag mu bokk ci ab lim xeetu lim bi nga xam ne li fi waxoo la ngay wàññi rek du neex xam lu mu doon amma fil amsilati daal ci misaal ya al arbaxat ya di yent al axirat yi aji mujj fa innaa naka nun laa najudu du nu fekk lil mu may wesi ñeel la ñuy tam yisal jëkkëran ak tudd ci misaalin ci menn misaal min haa ci ñoom walakin na saamiha waaye aji dégg ja yàlla xamuhoo yàlla xamuhoo dana ko gendiku wa yaf xamuhoo te mu koy xamaale xiina yasmaxu ci waxtoo muy dégg al jumala jumla ya fa isa samiha bu déggee jumlata taabal makkaanu jumla yi taaba tey na al makkaanu béréb ba masalan ci misaal laxawa mu gendiku ne